ak émission bii def buzz di eh, ndekki li émission nandite yi xam nga commentaire yi danoo takkar naa si jamono ji ci suñu chat bi eh, ku nekk ki la yitteel eh, am na ku bind anamu sax moom laay wër xam nga man genre commentaire yi laay wër <laughs> nee na mënumaa gis anamu sax voilà Alioune Alioune Gueye la tudd nee na j'arrive pas à les autres maanaam man ak Mbacke ndax Maodo Maodo fay verte bi am na doole <laughs> oustaz <laughs> euh, sama waa ji nee na li li ñu nekk en direct nii ci vidéo bi mhm. nee na mënuñoo gis maak Mbàkke ndax sa verre bi am macha allah macha ne ko tudde naa ko ko macha allah <laughs> jamono ñooy am na solo rokkee rokkee ñaata nit nga ko tuddee gun bu la faatu jàppee ngay tudd xam yow xam nga yow yow yow da ngay dugg sa yoon nekku bu la bu la taa faatu waaye dama yow sa nekku ji xam nga yow yow da a ruube yow yow yàlla la natt ci groupe rek Mbacke xam nga Mbacke nit moo bokk ci genre région bëgg nu jàmm fi la fi la jàmm da <laughs> gi nii barke yàlla da koy déranger am na am na ko ñu doon laaj ni seen biral daa noddu pare am ko ne biral sa noddu gi neex na ko tudde naa la ko <laughs> léegi nag ñuy laaj ba xam kooku warati naa noddam déet gannaaw noddu gi daa am ku mu koy dédicacé